Euh, pour signer convention avec secrétariat exécutif 9 9e forum mondial de l'eau pour donner la euh, participation au Fils des lacs et cours d'eau si euh, réussit tout événement l'événement. événement bob un événement bu mag la ndax mi ngi am même si dëkk Afrique subsaharienne forum secrétariat exécutif bi bo ba légui mi ngi liggéey liggéey bu rafet bo gis nañu participation yu réussite gis nañu aussi activité yi muy def yëpp mu réussir que ba si mujj rek mooy le kick-off meeting bi mu organisé woon si fin wu 2019. mille te ñu gisoon ni am na participation bu am solo si euh, euh, àddina bi yëpp ñëw nañu teew boobu nag ñoo ngi doon participer si équipe bi tey dañu ñoon formaliser ko pour wane daanu gën a participer et daan leen taxaw aussi nekk seen point focal si côté nord bi xam ni Ndar fa la nekk pour euh, Ndar fa la OLAC installé pour mën a. Euh, vulgariser euh, euh, forum mondial de lobby, bi xool ñan la ñu mën a parrainer fexe aussi ba structure yi nekk Ndar te di yëngatu si ndox ñëpp aussi mën a bokk si réussite forum bi. xam nga forum bi tamam moy jàmm si ma ko doon jéem traduire manam ñu gérer ndox bi bu mu indi jàmm te ñëpp xam na ni OLAC bi ko président Macky Sall créé ci 2017 mission yi mu am entre autres moy ñu fexé ba ndox mu douce manam ndox mu neex bi am Sénégal yépp ñu mën ko topato mobiliser ak lépp luy lac ak cour d'eau bu nek Sénégal xeyna na ñaar rek ñoo ci bokul moy fleuve Sénégal ak fleuve Gambie ndax yoy Sénégal dafa signé convention internationale bo xamni ne ñoo koy gérer ak dëkk yi mu euh, euh, taxal mais rôle OLAC nak suñu waxé waxu gérer ndox te mom am mission topato lépp luy dex lépp luy marigot lépp luy lac ci Sénégal donc foog mu jouer ce rôle bu mag donc ñun forum bi liñ ci xaar moy jang d'abord si ndax forum bi forum mondial la àdduna bi yëppay ñëw ñu jang si xol ñi fiy ñëw euh, ku nekk sa expérience mais ñun aussi wane sunu euh, mission wane aussi li ñu def si très court terme ndax 2017 la ñu office des lacs et cours d'eau xëy na daanu l'Office lu office lac de guerre jotona def mais aussi wane li ñu nar a def yoog ñett at yi di ñëw te li ci ëpp solo mën nañ ko tënk si ñetti pàcc benn bi mooy transférer ndox

benen bi tamit mooy dans le sud ñu xol nan leen man aménager fleuve euh, Casamance ak itamit une partie du fleuve Gambie bi xam mi ngi traverser biir Sénégal donc loolu yépp daan ci waxtaan ak partenaires yi jëm ko euh, fësal ba pare tamit wone ci échéancier yu nu mën a euh, tey dañ doon signer ben protocole ak OLAC OLAC ci société yi nga xamné ñom ñoy ñooy toppatoo ndox ci Sénégal

def liggéey bi pour yaatal communication bi yaatal promotion bi waaye itam mobiliser wu pour que bu forum bi ñëwee ñu ñëw mën cee taxaw taxawaay bu yaatu waaye li ñuy mobiliser itam du yem ci réew mi danañ mobiliser itam seen i partenaires internationaux donc protocole boobu tey euh, protocole bu am solo la te dina tax ñu mën def ay waxtaan yu yoo xam ne danañu mën a faciliter euh, liggéey bi nga xam ne moom mooy euh, naka la ñuy toggee forum bi forum bi itam bu ñu ca yeggee exposition yi maanaam stand yi ku ci nekk war cee ñëw teew ci ñu war a fexe itam Sénégal am ci stand bu bu am solo boo xam ne dana wone gis-gisam xam-xamam ak liggéeyam ci wàllu ndox waaye itam mën a dalal euh, àddina si yëpp kon nag liggéey bu am solo la te am nañ ci yaakaar bu baax a baax.